sëriñ Moxtaar naar loo di ko teg loxo di teg ci loxo lii daanaka exemple de solidarité ci teewaay jot waaw ñu gis ne sa bii nii mooy sa première euh, présence fii nii si Daaray Koki ban euh, satisfaction nga am ak gis-gis bi nga gis ne ndaje mi noonu lay doxee ci daara ji ñu ci ëpp bëgguñu ko lim ndax dañuy def ngir yàlla te ku def ngir yàlla yàlla moo lay fay. exemple sëñ Fallou wax léegi comme sa borom am engagement moo wóor loolu yàlla fay lu nga teew bu fay ba ëllëg ak Oustaz Babacar Socé euh, kon nag lu baax di génne fii roy ak euh, ñooñu ay nit ñu war a roy Sénégal la euh, ñu war a xool exemple ci ñoom ñu gëm seen réew jàpp ci liggéey ngir yàlla bëgg réew mi jëm kanam bi ma daj bi ma ñëw fii tey son excellence le sa Macky Sall la comprendre ne Sénégal dama yëg contentement ndax dama yëg sama yaram tey dafa contente dafa firee ndax dama yëg tey dama seet fii fu am barke bu ñu waxee Sénégal foo xam ne alquran la ndax comme ni ko alquran waxee rek yàlla subhanahu wa taala suma awrasna al kitaaba wala su région foo dem ñu ngi tàkk suma awrasna al kitaaba foo dem ñu ngi xeex waaye Sénégal jàmm am na kon yàlla ndonu lu rafet ñaan nga xam ne dafa ñi mu tànn ci aw nitam ñoom la leen jox mu daara yi muy daara yi daara yi toog mel ni ak organisation ci jaar yoon bi ak ni mu mel tey vraiment tey li Imam Ali daan naan lu bari looy dégg ci àdduna soo ñëwee boo ko gisee na nga ko déggee woon mooy ëpp na koy gisee mais man tey bi ma ñëwee fii dama gis ni ko dama gis tey moo ëpp dama ko doon dégg noo jàngatee bi nga xam ne tànn nañ ko ren muy manhajul qur'an karim maanaam jëm jëmm alxuraan maanaam ndax benn la julli nga na mën a nekk par xam ne am di ci liggéey ñu leen di sargal bu baax li ma nga xamee ni moom la sëriñ bi nga xam ne moo sañ ci daara ji nga xam ne loolu moo ko taxoon a jóg mooy benn la julli jàngal doom Sénégal ci téere bi nga xamee ni moom mooy seen téere bennoo ndax comme alxuraan bi benn la te moom ngay jàng kon yaakaar naa kon moom njëkk naa teg yoonu benn la jullit ndax bennoo bi nga xamee ni loolu moo taxoon yonent bi ñëw alxuraan ñëw mboolem yonent yëpp ñëw kon thème bu mel noonu nga ne tànn ko kon yaakaar naa dafa mel ni rek dundalaat objectif bi nga xamee ne ki sañcoon daara ji loolu moo tax a loolu tamit mooy tax objectif alquran ndax alquran daf wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mu ni kon boog li ngeen ànd nekk benn loolu nag lu war a nekk la man na nekk waa war na mën nekk wante na lay nekk moo di mooy yére yi nañ ko rafetal nañu ànd njort yi nañ ko nañu àndaat ñëpp joxante waat ci sunu xool li nga xamee ni moo ñu séparé ci ay kii yooyu nga xam ay seesuwaan yooyu ñu tegee ko côté ak ñu man koo réparé xam nuñ koy waxtaane si te xam ne ñun li ñu bokk dafa bari lool lool lool lool ba tax na yaakaar naa loolu dafa tax amatul dara lu ñu war a mën a teqale ndax su fekkee yaa bokk benn téere bi alquran benn yorante bi bekk juróomi julli yi bokk diw bokk weeru koor wi yii yëpp ngeen bokk ko yaakaar naa ne kon daal gisatu ma benn différence boo xamee ni te et puis tamit bi nga xam ne moom la ñu am ci bennoo kooku ñoom war nañ ko mën a gis ndax bu ñu bennoo dañuy am doole dañu mën a def lépp gis nañu àdduna bi sax ñi nga xam ne ay jullit sax ña ngay daw booloo ndax xam ban intérêt lañ ci gis loolu kon nag yaakaar naa yi war nañoo mën a gis bu dul sax sax ñu xool suñu intérêt yi a ànd loolu daal lu am solo la kon thème bi tey vraiment ala daw xam naa ni ñu koy jaajëfal bu baax a baax moom mooy al oustaz Mouhamed Niang euh, di euh, secrétaire général du conseil des ulama ahlul bayt fii Sénégal ni ñu koy jaajëfal bu baax a baax jërëjëf wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا